man la Soxna Awa Mbacké di vice-présidente association des jeunes ambitieux de Cité Lamy tamit initiatrice mouvement and liggéeyal Siré l'essentiel a été dit tant Oumou Gueye wax na lépp Mamour wax na lépp wax dëgg yàlla je suis très ému kontaan trop parce que yakaron nani première woote su ko defee nii instant bi du du du réussir ni daal kontaan trop en plus tamit maa ngi remercier comme comme ni ko Mamour waxé que Siré Dia bañ fay def ay pas

parce que reconnaissance wessoul Siré Dia jël alal ji mu jël muy lu ko yàlla teralee jaarale ko ci président de la république son excellence Macky Sall mu jox ko direction générale de la poste Siré don doon doomu Thiès amaana dëkkul ci talam yi école modokan mais mu dégg ngén def doléance mu répondre ci favorablement yëkkati alal ju takku def ci ne jappalé jàppale ngén défar sen école xalé yi mën a kon yéen bu ngeen jugee am pas-pas bu toll ne da ngeen koy delloowaat njukkal ci naka li muy wut ci dëkk bii di ko wutal son excellence le président Macky sàll yéen nga ne da ngeen ciy xar seen tànk tubéy taxaw ci ñu ko mel ni sama naataango yi ñoom awa ñoom Mamour ñoom ñëpp ñu jug takku nañu ñun ay ndaw lañu certes mosuñoo def politique mais incha allah rabbi dinañ ànd ak Siré Dia wan ko ne ko lim ñu defal ñun dinañ ko fay teranga boobu muy lan dinañ jug dem ci suñuy naataango dinañ jug dem ci suñuy waajur dem ci suñuy xarit dem ci sunuy àndandoo woo leen ñaax leen ngir ñu futteeku ànd ak Siré Dia ngir li mu bëgg waxuma la rek Cité Lamy mais partout à Thiès ba ci Sénégal li mu bëggal Macky Sall ngir yàlla mën ko ko may mooy ngeen jug ànd ak moom yaatalal ko baas bi wutal ko mbooloo mu ànd ak dal am ay carte électeur te fal Macky Sall en 2019 tey loolu dañ leen ci sant bu baax a baax a baax a baax tey bu ñuy wax Siré Dia Sané wax na ko sànq ku ne Siré ne mbooloo mi mais ku ne Siré Dia wax emploi ku ne Siré Dia wax financement ku ne Siré Dia wax ay actes yu muy posé te lépp mi ngi jublu ñu jàppale jigéen jàppale ndaw jàppale mboolem couche population bi ci lu waay du munti yëngu Siré Dia heure boo ko fëggee mu wuyu la tey munta teew fépp mais ay nitam chaque jour chaque week-end ku ci ne di nga dégg ñu ne waa kër Siré Dia yi dem nañ ci gox bële waa kër Siré yi ñu ngi ci gox bee te loolu day répondre rek ci appel bi ko président de la république appel ci yaakaar bi mu am ci moom ne ko demal dem leen ngeen teewal ma dem leen ngeen jàppale askan wi dem leen ngeen xool sénégalais lan mooy seen njàmbar ngeen saafara ko ndax loolu mooy le plan Sénégal émergent tey dañuy am mbégte bu rëy ndax fii amaana sunu gan yi bu ñu tëj wala gan yi bokk man maa ngi naan sunu gan yi na ci gan yi laa bokk mais tey dafa mel ne bokkuma ci gan ndax bi ma xëyee ñëw naa fii amaana fi la ñuy yendu parce que li ngeen ñu wan dëggu ngeen ñu wan ku ngeen ko wan mu bàyyi léppam ñëw tayoon leen dañ leen di ñaaxaat encore une fois di leen wax ne liggéey bi nii la amul secret tey lépp loo xamante ni nii ñun ñu ngi koy def lépp loo xamante ni nii ñu ngi koy jug di ko dox Siré Dia rek moo ko waral di gërëm Habib Niang comme li mu ko wax léegi rek moom dafa def aveu te waa Thiès bu ñu dégloo bu baax dinañ xam ne Habib Niang aveu bi mu def Thiès bu ñu ànd ak seen xel ànd seen ànd seen sago bi Habib def dinañ def lu ko raw muy mom neena na dafa rëccu ay at yi mi tok andon nag lu kooku noonu ndax duñ ko may bo duñ tudd turam kon ties Mamour wax nako on doit cesser d'être une ville opposition d'opposition muy lan nit du bañ teraangaam nit fu teranga ne da nga wara a jóg rawati na na nag gor gu ñew di la defal teranga sa su ne heure bu xëyee defal la teranga kon dañu wara a suñuy beut ànd ak ki am njëriñ ci dëkk bi Cees laa juddoo Cees laa yoroo Cees laa jàngee am naa lii am naa lee am naa lee mais lan nga defal Cees waay Cees waay nañ jug ànd ak Siré Dia mooy jàppale Cees waay mooy répondre ci seeni besoin lépp lu ko nit ñi laaj Siré Dia mi ngi ci lépp lu nit ñi di soxla Siré Dia mi ngi ci te lenn rek moo ko ñor muy Cees jëm kanam lenn rek moo ko ñor muy la président de la république li nga xamante ni moom la digaale woon ak sénégalais yi ca bañ koy jox réew mi mu def loolu tout def mboolem kenn kattanam ba yooyu yëpp Séné président de la république matale ko fii ci Thiès kon Thiès waaye fi ñu toll nii ñoom ñoo war a jug xam ne yoon bi Siré Dia tegu Thiès waa bu ci tegu di nga mel ne neen mënatuñ fee nekk di opposé wu jëmale bu kenn xamul nañu ànd ak sunu xel discours yi neex yi wax ju neex tabaxul réew yor say kàddu fu mu ñaawee nga yëkkati teg ci deru président taxul ñu jox la réew réew bu ñu koy jox dangay ngay andi un programme yomb na trop nga taxaw naan président de la république woo naa la ci débat mais yow lan ngay débat amoo programme lu dul xas président amoo programme lu dul lu président def nga ŋàññi loolooy sa programme président du débattre ak yooyu dañ leen di bàyyeeg population bi ndax dofuñu population bi xam nañu bu baax tey li président de la république di liggéey résultat yi ñu ngi koy gis kon li ci des mooy ñëpp jug takku ku ci amul woon carte électeur ku ci amul woon carte d'identité nga dem inscrire wat ndax bëgg naa Siré Dia reconnaissant naa ci Siré Dia lim ñu defal gis naa ko ni nga ko koy fayee mooy nga jug dem inscrire inscrire say mbokk inscrire sa famille bu élection jotee nga dugg ci mbañ gàtt gi jël kartam voteel ko ngir mu am ndam. Gosaat dafa toog ma toog mu woo Siré daal di koy ne lii mooy soxla si moo dakar keroog biñ may woo di ma laaj sama carte d'identité keroog goo saara nga fa ñu jox ma 9 millions ba ma juddoo ba tey musuma téye xaalis bu toll noonu ñu naan Siré Dia jërëjëf dëgg la pilotage liggéey bu jigéen jiitu la nag jigéen jiitoo woon na ko waaye dara dara dara jaaxaluma ca liggéey ba ndax commencement ba fee maa nga taxaw ba ñuy jël xaalis ba maa nga taxaw ndax maa ko tiire choc baa ngi nii ci sama saal bi ñu commencé travaux yi maa nga taxaw ñu waroon a defar 14 classes 12 classes waxoon far ñu defar 14 classes bien vrai que sooxee de parce que boo nee xaalis rek ñuy song si dañuy bari waaye nag école Modou Kane ku ko xamoon démb xam ko barki démb boo ci duggee tey sa xel daal ñun nag ñoo waroon a dox lii ñoo waroon a woote. ñun ñi nga xam ne ñoo yore woon travaux yeeg xaalis bi duggoon ci suñuy loxo waaye suñu doom yi ñuy remercier Awa Mbacke ak Mamour seen initiative bi nga xam ne jël nañ ko ñëw ci man waxtaan ne ma dañoo bëgg a delloo sëriñ njukkal ma ne leen yéen de da ngeen sàq mi sama lañ ci ndax man li nga xam ne maa ngi ci nekkoon ña ma ko bokkaloon ba liggéey ba jeexee dem nañu seen yoon am na ñoo xam ne dañuy mbubboo si Cité waaye bokkuñu ci waaye tey yéen ñi di xale toll ci voté dëkk fii ci Cité Lamy gis may président parent d'élève en même temps ma nekk présidente nekkoon présidente commité de gestion yàlla dugaloon alal jooju jóge ci Siré Dia te boobu ba léegi jóguma dem dikkuma maa ngi toog fii ci moo Dakar tey ngeen taxaw ni da di taxaw indi bi initiative ma ne Awa Mbacke ak Mamour ay xale ngeen Awa yow Mbacke bala is mënoon nga toog di laaj addiya waaye danga xam ni li ñu naan Sénégal émergence dafa taxaw te yow danga war a taxaw bokk ci réew mi nga wut ñoo xam ne say nawle la ñu ngeen def seen association àndandoo nekk ci koñ bi fas yéenee taxawal lii waa seeni yaay yépp ànd nañu ak ñuy wax Siré Dia nag ni ko kuy lebal lebalal xale Siré li mu def ci Cité Lamy gi xamu ko sax waaye nag am na lu mu wone législative bi bi mu ñëwee parents d'élèves yeeg waa koñ beeg ñëpp a takku ñun la doon am dootu fi amati yaakaar naa ni xëy na peut-être de waaye changement am na ndax tëj nañu suñuy porte ñi war a dugg dugg kenn duggul di mine suñu école ndax ñoo xam ne nekk nañ fi ay at ma suñu ñoo defal dara te bu ñu waxee rek ñu gañe suñu école bi ñu ne nag loolu danga koo war a xoolaat wut suñuy garde fou ñu taxaw xale yi taxaw takku ba dëgër porte yi ñu tëj ko kenn miinewul suñu école moo tax li am am nañ ko léegi nag dafa am loo xam ne moo am ba des du ñu remercier Siré Dia koo remercier Siré li mu ñu defal ñun mënuñu ko rek di toog naan ko dañ ko naan jaajëf dañ koy bàyyeeg yàlla li ñu ne Sénégal émergent mi ngi ci mi ngi ci bu baax mi ngi ci ba mu ko defee nag dafa am ñoo xam ne dañoo ñëw topp ci gannaawam parce que ku la defal dara yi nga ne defal na ma dara ku mel ni Maodo Malick may te ku ba dëgër ni comme Siré def na loolu indil nañu peinture bu dul jeex mu ne lu Siré def dana ca jàpp ndax Siré Mbacké lay jàppale te moom dina jàppale Siré Maodo def na loolu indi peinture ne moo ko def ca liggéey ba ñu koy remercier ñu koy remercier bu baax ndax Maodo it nit ku baax la ñu koy remercier ñun nag liñ leen di yëgal mooy xale yaa ngi nii xale yaa ngi nii takku nañu ba dëgër seeni carte lijjanti nañ ko ñu jotagul seen carte ñu ngi koy wuti fas nañu yéene takku ba dëgër Macky Sall fii ci école moo Kane bii Siré Dia tax na bu soobee yàlla lépp loo xam ne yaakaar na ko fi dina dinañ ko góor góorgóorlu ba mu am ko fi ñoo moom suñu école de am na ñu doon jaagar jaagare dinaan moo gañe si talam ci xol yi la ne waaye yaakaar naa ni xale yaa ngi changé de ni dama daan dox ñu ma fii ni daw ñii daawuñu xalaatuñu woon politique mais fi mu nekk nii dañoo takku ba dëgër parce que Siré moo leen ko ji Siré da koo ji xale yi seen école bi ku fi dugg xam école la kontaan nañ ñu ngi leen di gërëm di leen sant man nag maa ngi yokk di gërëm góor sa te suñu kaw ñu doo leen ko def waye tey xale yi faj nañ ko waay am fu ñu jógee am fu ñu Siré ja indi ni ñu lebal ker ku ma lebal naaj ma fay la ker moo ñu ko wax ñun suñu wàllu boobu te mosuñoo wax mu deñ si rajo soo duggee Cité Lamine man de xam naa ci emploi yoo xam ne nii sama loxo la jaar dugg biir Cité Lamine xam naa fi leneen loo xam ne nii tey bi ma ñëwee fi laa ko fekk ñu ne ma si ko fi def damaa dugg ñu ne ma si moo fi def lii kon nag kooku waxuma la sax diggaate mooy ki nga xam ne nii mën naa ni mooy xalif général de kullu politicien waxam néew na jëfam bari na te dafa affaire bu doy waar la waxam néew na jëfam bari na Siré amul xale amul mag amul rag lépp loo lu ñëw rek man comme comme bana lu ñëw rek loxoom a ngi ci biir te lépp loo xam ne nii su dee jumaa jàkka euh, avec yi bàyyiwul dara ñu ñu gën a tuuti suñ ne ko mu fajal loolu waa gox boobu kon nag ñun dañ koy remercier ci loolu tey ñun ñu taxaw fii ñëpp ku ci nekk si Siré Dia am na fu mu jaar ak yow ci gox bu mu mënti nekk ci Thiès quartier bu nekk Siré Dia am na lu fa def mu neex ak mu nakari ay at laa def réew mi man depuis waa ji bi réew mi dee réew mi PDS ba tey ma mujjee ñëw kër Siré Dia tey mën naa ni rëccu naa at yi ma def foofu ma nekkoon ci laps de temps boobu nga xam ni nii laa def ak moom laa découvrir que ni tey xeex ak nguur fii erreur gënu koo grave parce que moo ñu tardeel école bu mu mënti nekk école bii moo gën a ngand ci école yi dañ fi daan ñëw di xeex suba ngoon guddeeg bëccëg te ku ko gañe gañe nga Cees te tey jii escore bi waa Cité Lamine diwuyee nañ ko ba tey jii élection si fi amaatoon ngeen xam kon nag comme que xam nañ ci loolu ñun suñu wàllu bopp ñu ne nañ dem jëli xale yi nga xam ne nii mosuñu politique di soog a am carte d'identité ñoo xam ne nii dañuy soog a ñoom nag en personne ñooy nekk en phase ak ñi nga xam ne nii tey ñoo yoroon école bii loolu moo waral tey ñuy dem ci association yi ci avec yi ak ci ñenn ñi nga xam ne mosuñu politique parce que dama jàpp ne loolu mooy base liggéey bi ku ci nekk fa nga nekk di ko ñaan soo bëggee Macky Sall réussir à Thiès te dina ko def incha allah base ba fa ne. nañ fa dem xeex ko jëli ñi nga xam ne nii mosuñu politique ñi nga xam ne nii tey kenn dootu leen nax ci ay année 2007 ak 2009 ak ainsi de suite ñu jox ko victoire bi premier tour bëgg nañ Macky Sall gagné Thiès lu mësul am ci Sénégal parce que yombul woon te gëm nañ ni élection présidentielle yii di ñëw yàlla mënuñoo dimbali Macky Sall gagné Thiès te ñi nga xam nañ ni ak Siré Dia tout est possible à Thiès kooku kenn du ko laam-laamee responsable bu nekk défier nga fi Idrissa dama koy wax ci kaw mais Siré Dia dafa ñëw défier ko gagné ko lu mësul am Thiès kon nag présidentielle la ñuy gën a xam ni sire ngi ni ñëw dalaat seen kaw. man la DG yónni woon maa fi ñëw. mais yow bàyyi woo ma également daf nga ci kémtu lay kàttan xeex ci ñafe ci ñafe ci ba affaire bi am kon yow it soo ñu gërëmee à travers Sirédia ñu ni dañ la koy delloo parce que yow vraiment tu es une combattante xeex nga ci jàpp nga ci ba école bi kii te DG mi ngi ñëwaat dinaa leen ko wax fii mi ngi ñëwaat pareegul incha allah donc euh, non matériel pédagogique bi de euh, le directeur monsieur Ndiaye am na lu ñu ci wax euh, DG bàyyi na ci xel te moom comme que ay jëfam moo ëpp ay waxam donc restons à l'écoute rek incha allah euh, di témoigner rek euh, ni Thiès ñun dañoo war a gën a góor góorlu gën a jàpp surtout ñun Cité Lamy man Cité Lamy laa dëkk soo jegee tali bi nii rek Sarène laa dëkk man dong maa jàngewul fii suñu waa kër yëpp fii lañ jàngee man maa jéggi tali dem jànge école som donc ñun Cité Lamy lañ dëkk Cité Lamy lañ am fii bi ñu juddoo ba tey investissement bi fi waa def kenn musu ko fii def je pèse mes mots loolu moom lu ñu teg la beneen bi tamit euh, toutes les mosquées à part celle qui est de l'autre côté boobu rek mosquée yi nekk Cité Lamy yëpp déjà chaque année mi ngi leen di subventionné kon ñun waa Cité nañu sant gën a góorgóorlu jàppale suñu leader bi man nag tey dafa am lu ma euh, rassuré trop li ngeen def nii Mbacké c'est très rare mobilisation bi ak jëm si tamit jàpp pour jàppale man fii laa dëkk mais je sais que lii c'est une excellente chose li leen def rek di leen ñaanal yàlla may ñu fekkee ñun ñëpp wér ak wérle ñu ñaan suñu borom fii si Lamine ñu gagné ko parce que fii lañ nekkoon su élection législative yi mais am na beaucoup d'acquis soy ay salle yo xamni ay deux voies lañ lay rawee trois voies musu am fi dañ la daan ay mille ay nangami voies mais man maa ngi foon maa fi doon siégé mais ay deux cinq amna trois salles yu ñu gagné fi xawma ma quatre salles te loolu amu fi yoon donc y a un travail qui est en train de se faire à Cité Lamy donc on vous encourage yalla na leen yàlla yokk taxaw. école bi nek ci situation bu difficile classe yi commencé mab di menacer doomu Cité Lamy yi mooy xale yi. di menacer xale yi parcelle di menacer xale yi Kër Daago vraiment ngeen taxaw lancer ko appel mu réagir à travers Go ngeen def ko ci école bi ba tey xale yi seen xel mën a dal parents yi seen xel mën a dal ba tey xale yi di jàng loolu jëfam la mais yéen ay góor ngeen parce que présente yow mi présente comité bi tey boo la ñëwee toog sargal day gestion ja gërëm ko sant yéen ay góor ngeen ndax nit defal na nit. mu ne dama ko yelloo waaye ni defoon la nga gërëm ko sant à travers yow ak ñoom Awa Mbacké kon nañu leen di gërëm leen sant yéen waa Cité Lamine buñ ci jógee ñëpp xam nañ ne à Cité Lamine DG Siré Dia macha allah dugal na fee emploi buñ ci jógee oustaz Khalifa Kébé da koy faral di wax jumaa yi ak jàkkay Cité Lamine bu ñu jooyul ngir yàlla ak jëmmi des Siré Dia la waaye nag leen lu am solo ñu koy faral di wax lu mel ni sport lu mel ni nawetaan lu mel ni njàng étudiant yi nga xam te yu Thiès lañu te doomu si tamit ci ñëpp gis it taxawaay bi DG Siré Dia am vis à de chaque année kon tey fort de sa bilan Cité aussi ne kenn du dem ñu des élection législative yi ñëw papa yi jóg yaay yi jóg doom jóg DG am lu ko marqué trop mooy bés bi muy dugg Siré Lamine ci campagne bi parce que Siré Lamine yaatu na Siré Lamine rëy na mais gàcce ngalaama responsable Siré Lamine ak ko nga xam ne dañu ànd ak DG Siré ja nekk biir APR teeru biñ ko teeru foog naa ne amul un leader politique buñ ko mës a teeru fii ci Thiès kër ba muy dugg Siré Lamine ci élection législative jël engagement ne incha bi il ils vont renverser la tendance ñu dem ci élection yi mu métti trop. avec la pluie ak li ci tegu yëpp écart bi motul cent voix ci ku daan jóge ci ay mille sept cent mille neuf cent kon déjà si dañu ne yéen waa Siré mu leen di gërëm di leen sant di leen encouragé waaye xel dafa dal parce que la jeunesse bu Cité Lamine tey buñ jógee taxaw ne dañuy jàppale déjà Siré Dia kon dama naan mbir mi mat na ndax li fi toog dong bu ñu votalee déjà Siré Dia mu gañ école bi te leneen mu ngi ci ginnaaw di ñëw biir Cité Lamine loo xamante ni. dañoo taxaw pour jox école settlement DG sereja. parce que aussi politique mooy lan jëmale dëkk kanam politique mooy lan jëmale askan kanam mbokk yi lu nit waxadi waxadi histoire politique u ma samba jaar na fi ma demba jaar na fi ma paté jaar na fi waaye li ndee ba di faral di wax jàpp la jéeri kenn du moom kuy wax te yàlla tax son bilan kenn mus fi def lu mu fi def kon nag loolu bu amee yéen mbokk Cité Lamy def doomu Cees bobu tay mu taxaw nak ne dafa am loo xam dama ko waxante won ak wa Cees moy inshallah rabbi man DG Siré Dia chaque fois que besoin à travers la jeunesse à travers les femmes da groupement féminin yi doon ak amul ben groupement bu mu ci le financement pour le développement ñi kon lolu engagement mi. mu taxaw ci durant ces six dernières années def lu kenn deful Thiès jàppale nit ñi lu kenn deful Thiès waaye mbokk Cité Lamy nag présidente sànq da ko wax koo xamante ni dafa taxaw askan wi koo xamante ni dafa jege askan wi koo xamante ni waxam bëriwul mais jëfam bëri na mbokk Cité Lamy kookee nag dafa am loo xam ne da ko soxla muy lu ko yitteel ci amul lu gën a kawee loolu ci moom. mooy fii ak at xam nañ ne élection présidentielle lañ jëm mu taxawoon daan ñu wax daan ñu wax ba ñu mooy lii priorité absolue pas seulement Thiès au niveau national mooy liggéey jàppale askan wi tey la fait mais li mu béy nag daf ko war a góob te loolu ñun waa Thiès ñoo ko war a tàmbali rawatina waa Cité Lamine parce que histoire u Thiès bu dee dañuy wax dëgg te yàlla tax ce qu'il a fait à Thiès ce qu'il a fait dans ce pays ce qu'il a fait pour les postiers Amoul, un responsable politique pour mu def et parlons payer bien pour moins que ça waa donne une nañ votali nit kon tey li mu fi def bu président sona au Ndiaye ngeen seede ko kon tey li war waa Thiès mooy delloo ko njukkal delloo ko mu njukkal fagaru ñi dem bindu ñu yor sen carte ñu pour l'échéance, bi échéance pour le DS Moi moy aussi en 2019, au mois de février et dès le premier tour à travers ce pays moy fexe taxaw porter bilan DS, Siré porter bilan président Macky Sall au niveau national pour que sénégalais li nga xamanteni ni won nañ avec l'avènement du président Macky Sall moo une élection législative de jox majorité ñu devons fofu ñu dem ci élection municipale ñu joxo majorité au Sénégal ñu delluwaat élection législative nous joxo président Macky Sall kon mbokk yi li ci dess cohérence moy lan delloo président Macky Sall njukkal à travers l'émergence qu'il est en train de réussir dans ce pays à travers l'émergence que le DSC est en train de réussir à Thiès moy un second mandat et dès le premier tour avec la manière. amin jërëjëf jërëjëf. kon yéen génocide, Cité loolu seen rôle la seen engagement la woon ndax politique li may fal di wax dox ak wax la l'autre jour on vous l'a dit mooy politique ku am leader mel ni bilan bi mu am da ngaa war a ñeme te ñii taxaw ñoom Paul ñoom Habib ñoom Gossou dañoo ñeme parce que bu doon teg Siré Dia def fi dara wax ci du bëre waaye tey li tax ñu ñeme ñoom parce que ils ont un leader boo xam te ni il a fait un bilan que dans l'histoire de cette ville aucun homme su ko def kon leader bu mel ne boo ko amee en tant que jeune intellectuel wàcc leen ci base bi waxtaan ak nit ñi sensibiliser leen fort de son bilan te DG si Dia nee na am na yaqin ne avec les responsable yi nekk Cité Lamy incha allah bi école Maodo Kane cette fois si di ngeen ko gagné mu teg ko ci loxo président Macky Sall kon loolu di loo xam ni seen mission la ñun dinañ ci ànd ak yéen jàppal leen ci taxaw leen ci. waaye leneen li am solo mooy Habib ñoom Paul ñoom Vondé ñoom Gossou Pape Mar Aimé yéen ñëpp aussi une fois de plus on vous encourage parce que aussi gis nañu seen taxawaay ay conseillers municipaux ñëw nañu ndax seen taxawaay ay jeunes et des jeunes et ñëw nañu ndax seen taxawaay loolu moo tax ñun ñi nga xam ne ay ragal lañu ñun ko may bàyyi Cheikh ñu ñeme parce que rakk yi mel nii ku leen am da nga ñeme parce que ay jàmbaar lañu ñoom fit lañu ñoom fulla fër lañu kon félicitation <laughs> waaye nag tey nag damay am ñaari point yu may complété bu njëkk bi dafa am ku taxaw ci dëkk bi dëkk bi ne dafay invité président Macky Sall débat ma leen di wax ne leen dafa am ñoo xam te ne récréation moo leen boole am na ñoo xam te ne récréation wu leen kookee président Macky Sall ak moom bokkuñu récréation sax du leen boole ki dafa nekk primaire redoublé ñu war koy waaja a dàq kii nekk lii si am ba war a dem université parce que it nag kuy politique da ngay progresser wala nga régresser ki terminé woon deuxième en 2007 en 2017 en tant que tête de liste départementale DG Siré Dia battre la kooku Siré Dia sax buggul a def ak yow débat asumaal président Macky Sall kon xëy na nag ñu bàyyi ko Paul wala Moussa Ndiaye débat waaye du Siré Dia de ndax Siré nit kat àdduna doo dox di gestu sa kanam ngay xool di dem. tay tey DG sirega Dia ñëpp xam nañu élection législative passée moom moo battre nit nak bu dee ñu gagné sa département waroo mëna a doon de liste euh, waroo mëna doon candidat bu crédible kon crédible koku du ñu parce qu'il n'est pas crédible celui qui a été battu par le DG Siré Dia kooku mu am munoo aspiration kon président fofu ñu ngi lay wax né la Siré mo régler problème kon président ca kaw ca kanam ndax mandat bi incha beneen bi ma ciy teg mooy fan yi passé dafa am ku taxawaat wax ne président Macky Sall mooy gàllankoor ab kilifa ci dëkk bi muy président Abdoulaye xam nga nit bu ñuy wax rek nañu wax te yàlla tax ndax it nag waxtaan wax dëgg ca la Sénégal ñëpp xam nañ ne ñaari mandat la président Moussa ñu def ko ci loi def ko ci constitution vérifié ko Abdoulaye Wade ñëw violé loolu mu indi le 23 juin. adduna bi jëpp wax yëpp wax mu mbañ a reculer ay nit dee ci adduna bi yëpp xam ne kii dictateur la adduna bi xam ne kii yoon bi mu jëlal dellu na ci ginnaaw kon tey adduna bi buñ ko dénkul dara ñu ko fenn jëf yi mu jëfoon Sénégal moo tax tey au niveau international kenn du ko jox yenn mission yi parce que am na crédibilité boo xam ne nit bu ko amul kenn mënu woo pour nga dem ci mission parce que boo demee ci yenn réew yi tey naan leen damaa ñëw pour ngir bu président bi warul def kooku danaa la yow boor nga def troisième Sénégal kon kooku lépp lu ko dal tey ñëpp xam nañu ne moo ko teg boppam waaye c'est pas le président Macky kon Paul Sang li nga wax keroog ñi ñoruñu xaste ñoruñu président Macky Sall li ko soxal ak day Siré Dia mooy lan la jëmale Sénégal kanam te yéen waa Thiès yéen lay waxal dama ne bu ñu fàttee te ñun du ñu fàttee il y cinq ans am na ku taxaw fii ne jox leen ma mairie am na ku taxaw fii ne jox ñu conseil départemental ne day jëli jabaram. indi cabinet am na nay projet ay milliards da ñëw def Thiès léegi bu mot cinq de ana projet ana jabaram ana cabinet ba dara amu ci kooku tey est-ce que mun naa taxaw di laaj président Macky Sall bilan ñun waa Thiès ñoo koy laaj bilan il n'a rien fait à Thiès ces maires n'ont rien fait te kooku ma koy wax ne ba dafa jël salaire waa Thiès en tant que maire jël seen carburant di utiliser ay auto waa musul toog conseil municipal kon ak la ci moom te musul wax dëgg waa Thiès waaye mu jógewaat foofu ne jox leen ma conseil départemental ak échec bi am ci maire yi waa Thiès jox ko mu jël engagement au bout de cinq ans dara la ci respecté wul te mu ngi jël salaire di jël carburant jël oto yi di ko politiquer biir Sénégal kon ñun waa Thiès li ñuy wax mooy yéen waa Sénégal déglu leen baax a baax ki yore mairie Thiès durant fukki at ak ñaar échoué dara changé wu fi tey bu doon teg DG Sénégal ñu tumuraanke kooku taxawoon nañ ko jox conseil départemental defu fi dara di jël salaire di jël carburant di ko politiquer biir Sénégal waa Sénégal ñoo dox ne kookee mënul yor Thiès mënul jëm suñu dëkk nag bloqué ko. di nax ceesuwaay yi saa su ne di lekk suñu salaire suñu carburant ñuy wax ne boo yéen waa Sénégal ku mënut a yorob mairie ku yor ku mënut a yor conseil départemental kooku mënul yorob réew ñun waa Thiès ñoo bañ ndax boobu dootuñ ci dugg affaire bi du yor làmmiñ di wax affaire bi ay jëf la ndax Thiès jëf la soxla ñun développement lañu ñu aspiré émergence la aspiré te loolu ci président Macky Sall ak Ndeye Sira Dia lañ ko gis kon fi ñu jëm ñuy wax ne le débat c'est pas au niveau national. le débat c'est à Thiès nous mandat électif ils devront rendre compte ndax nit budget durant presque 17 ans tu ne fais rien tu ne fous rien dans cette ville tu nga taxu le président de la République Thiès a wax dafa doy Thiès a leen mairie le conseil départemental dara Il ci a bi taxu le président de la République moo wax leen ko fii élection day jóog mu ñëw taxaw jooy tari alxuraan ne doomu Cees laa boobaa nee leen ko Siré Dia doomu Cees wala Cees la ni yow waaye dafa fekk ne juddoo ci dëkk yaroo ci dëkk tekkee ci dëkk baax na mais amal njëriñ dëkk bel te Siré Dia moo amal njëriñ dëkk bi te ñun moom la votel ku nekk na denc loolu tontu boobu bu ñëwee taxaw biir Cees ngeen wax ko ku nekk na denc tontom mooy lan jour élection ku ne jël kartam votel benn bokk yaakaar ndax xoolal dañuy waxante dëkk Thiès mën naa bokk ci luy fal président Macky Sall mais Thiès mënul xañ président Macky Sall moom deuxième mandat parce que liggéey na ko yéene na ko ci Thiès waay te mu ngi ko fi def le si Siré Dia liggéey na ko fii te yéene na ko Thiès waay kon ñun waa Thiès ñoo war a taxaw jàppale le président Macky Sall à travers le si Siré Dia bokk ci lii may DG Siré Dia ndam ci élection 2019 bi mais bokk lii nga xam te ni mooy jàppale DG Siré mooy président Macky Sall un deuxième mandat et ce travail là DG est en train de le faire